76 844 43 44 wala ci 76 844 43 44 ma ne mbokk yi xippi leen seen i bët tàggoo ki nax ki ko mën laa ki koy jéem te ki ne fàng daa nga ne maa ngi ni nëbbatul ay mbiram. inondation dund bi lekk lépp lu ñu seeral te kenn ku nekk ci yéen nekk ca la mu nekk waaye yitte woowul jafe-jafe yi askan wi am kon ma leen di interpeller encore une fois yéen ñi nekk ci classe politique bi ngeen bàyyi xel askan wi parce que bu ñu leen fale yàlla ak ñoom a tax kon nañu leen bàyyi xel bu baax di wax rek ne conférence des leaders maa ngi leen di sant bi ngeen ma joxee dogal bi ngeen ma soññee ne ma mën naa dem waxtaani ak coalition bi ñuy taxawal ci opposition bu Sénégal yàlla dafa def tey ji kenn du wax ci mbirum politique ci Sénégal génn ci gëm sa bopp dangay nangu ndogal rek waaye ndogal woowu ku mel ni Khalifa Sall nangu na ko parce que tàllal nañu loxo wax naa ko conférence des leaders yónnee nañ ñu charte bi danañu ko examiner waaye ñoom conférence des leaders jox nañu ma quitus ne ma nañu dem dugg ci biir coalition boobu ñenn ñi jàppe coalition des grands kon cinquième grand am na may remercier ñëpp nag di rafetlu taxawaay waaye rek may interpeller les acteurs de l'opposition Sénégal tey jii ñu ngi leen di déglu Sénégal ñu ngi leen di bàyyi xel li ñu bëgg mooy yéen ñi nekk ci opposition bi ñun ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu dugg ci biir opposition bi ñun ñi ñu boole suñu doole doon benn l'unité de l'opposition et devenue une demande sociale parce que nag bu ñu waxantee dëgg bu desoon ci man ak Macky Sall donc bu ngemboo ma ngemb ma nit wàcc jàkkaarloog moom waaye yeewu na yeewu goo xam ne dafa am coalition bu mu àndal ngeen bëgg ko ngeen bañ ko coalition bi ça fait quand même neuf ans wala dix ans ñu àndandoo nekk benn kon coalition coalition moo koy daaneel coalition coalition moo koy déjjit te ñun ñii ci grande coalition gëm sa bopp danañu ànd ak opposition bi tàllal leen loxo liggéeyandoo ak ñoom ci li nga xam ne sumb nañu ko ba di ko dox ñu ànd ci ak ñoom yéene bi mooy bu ñu yeggee ci élection yi ñuy def incha allah élection locale yi muy janvier 22 janvier 2022 Macky Sall ak njabootam xam ne Sénégal suur nañu leen Macky sàll ak njabootam xam ne ñi nekk ci gox-goxaan yi lott nañu sonn nañu Macky sàll xam ne ñi nekk ci communes yi dootuñu ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar Gueye l'original heureusement bi nga ko xamee ba daw Parcelles Assainies jëm si ci grande coalition comme ça kon ñeneen ñi nga xam ne ñoom it xatal nañu leen fa ñu nekk ñu ngi leen di tàllal loxo daw ca ba ngay ami kon ñëw leen ñu àndandoo ngir lii ñu fiy suuxat ci lu bon ñu déjjati ko Gueye l'original ku ko déglu nga déglu son discours xam ne nit la koo xam ne ku engagé wu la ku bëgg li muy def par rapport ak réewam xëy na nag nit dina def choix mais di nga def choix ba ci biir nga gis ne du choix bi gën nga delluwaat ci say tànk kon loolu la def ñu ngi ko ci sant di wax rek waa Sénégal ne leen incha allah yéene bi ñu am mooy fexe liggéey Sénégal àndandoo fexe ak ñii ñu àndal ba Macky ñu daal di koy daan